que caméraman yi pare nañu c'est bon d'accord donc conférence de presse bi nii la nar a euh, ci wolof dinañ jox euh, kàddu gi euh, Gana Thiandoum moo yore kàddu collectif des travailleurs du groupe Industrie Mina ci wolof bu paree ñu jox kàddu gi. Boubacar euh, Cissé moo yore kàddu liggéeykatu group industrie Mina ci nasaraan euh, gànna Thiandoum ak euh, Boubacar Cissé bu ñu parewee mun na ñu sànni si ay kàddu ci turu FRAPP kon ñu jox kàddu gi léegi Gana Thiandoum mi nga xam ne moo yore kàddu collectif de travailleurs du groupe industrie Mina ci wolof Gana Thiandoum bismillah salaamaaleykum mbokku Sénégal ñu ngi leen di char yéen ñëpp di leen nuyu ginnaaw bi ñu sant yàlla sant Cheikh Mouhamadou Fadal sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ñun nag les délégués l'ensemble des délégués ak le personnel de gym ak personnel du tout le personnel ñun ñoo teew tey ñëw seet si waa FRAPP dégage ginnaaw problème boo xam ne ba ñu ko tàmbalee ba tey ñu ngi ciy dox te amuñu ci solution ñu ne nag bi ñu jaaxlee ba jaaxlee ñu ne ñu seet si ki nga xam ne tey mu ngi teewle di xeexal sénégalais yëpp seen àq ak seen yelleef ñu ne nañ ko dem seeti mu jàppale ñu ci suñu xeex bi ndax dafa am lu ñu tënkoon ci ak liggéey bu ñu tënkoon ak ki ñuy liggéeyal. ñu ànd ci lu ëpp ñeenti at moo am des contrat bien définis ak des ci usine bi ñu liggéey ñaari at am fu ñu toll mu ne dafay dem dafa am ay problème mu xaalis ñu jéem a saytu ci anam yépp nu ñu def ba ba tolluwaay yooyu ñu mën cee génn suñu borom dogalu loolu mu ne def ñu yóbbu sama technique yóbbu ñu sama technique pour huit mois huit mois boo xam ne amul ndàmpaay amul dara. depuis no le 9 novembre 2020 la ñu dem sama technique ñu toog juróom ñetti weer muy jeex mu woo ñu nañu boobu ba tey mu ngi wër xaalis mais suñu borom dogal na ne la mu doon séentu o jotu ko fi mu toll nii dafa bëgg yokkaat juróom benn weer ñu jëm ci darti darti lu ñu jëm ko ci suñu borom antanul ñu demaat sama technique yokk ci juróom benn weer ginnaaw loolu it def nañ ñetti weer rek ñu dégg ay mbir ne jaay na usine bi ñu dem saytu loolu it loolu nekk dëgg ba ñu demee fekk ne jox nañ usine bi ñeneen nit maanaam ñoo xam ne ñoo fay liggéey ñu ñëw laaj ko it moom mu xamal ñu ne usine bi tëjul dañu dem sama technique le 10 bu jeexee ñii dañuy génn ñun dañuy liggéey le 10 bi mu jotee it dellu nañ usine ba pour liggéey ñëw ci kaw taxawaay fekkuñu fa directeur fekkuñu fa kenn ci administration bi lu dul ñun liggéeykat yi ñu ñëw ñu ne ñu fii du ngeen fi dugg nekkatul seen usine. usine bi ñun ñoo ko jënd amatuñu lu ñuy wax ak yéen bu dee da ngeen di wër seen usine ngeen seeti ko feneen moom it bi ñu ko woowee mu ñëw ñu toog pour laaj ko ci loolu nit ñu fa si ñëwoon contra yëpp nee na seen contrat jeex na depuis janvier arrêté na contrat yooyu ñooñu seexatul ak ñoom dara juróom benn nit yi ci des ñooñ ñu ñi ñi nga xam ne ay ay ay embauche lañ def nañu dañu xëy usine ci bërëb boobu nga xam ne ay prisonniers tey la ñu fa denc ñuy liggéey liggéey boobu nga xam ne ñoo ko doon liggéey ñu ne nañu fa altine altine it bi ñu mu jotee ñun ñëpp xëy nañ fa bi ñu demee dañoo téye ci bunt bi nañu du ngeen dugg fii nekkatul seen usine bu ngeen soxlaa seen usine ngeen dem ci seen directeur ngeen laaj ko mais fii amatul li ngeen fii def ah moom woo nañ ko mu ñëw fan yi nag yëpp ñëw na daf ñuy teg ci taatu garab jox ñu këyit nañu signé leen yéen embauché yi gars yi loolu la ñuy dëkkeek moom ci taatu garab la ñuy xëy léegi démb la bind lettre nañu garab gi sax mënatul ne nañ ko fekk Sorida léegi xëyatuñu zone industrielle ICS nañ ko fekk Sorida loolu mënul ne boobu léegi nag ñu ngi ciy dem inspection di ci def suñu kéemtalaay kattan waaye moom mu ñuy wan nañu daal ma leen ëpp doole waaw ndax te boobu ak léegi waxtaan nañ ci ak ay magam parce que usine bi du usine familiale la dafa am ñu ko bokk seexul ñu woote ci waxtaan mais ginnaaw waxtaan boobu bi ñu ko wootee moom moo leen tënk ne leen yéen toog leen ci ngeen seetaan ma ñoom lépp dinaa ko lijjanti ci biir loolu it jot nañ ñu xamal nañu moom parewul pour fay ñu suñu xaalis parewul pour tey liggéey loolu daf ñoo bëgg a dawloo ñu topp ci di daw di daw di daw di daw di daw ba sonn ba mënatuñu ku xoox nga bàyyi bu ñëpp bu gisatul kenn xëj na mu mën a continuer dem loolu nag moo tax ñu ko tey seet si suñu xarit Guy Marius ak li muy def ci Sénégal ak jaayante bi muy def ngir góor yàlla yi seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne ñoo ko moom ñu leen koy xañ moom mu ciy jaayante pour ñu jot ko tey ñu ñëw seet ko pour it bokk ak moom xeex bi ngir li nga xam ne suñu àq ak suñu yelleef ñu mën koo jël ñu ngi toll ci. Euh, quarante huit personnes. ah dama lay alamaan de. <laughs> quarante huit personnes. y' a trois personnes qui vont prendre la parole yéen kay déglu leen ñëpp bu ñëpp waxee ces informations la génn ah. yéen nag naa leen alamaan <laughs> waa Gana continuer. Ghana continue waaw ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi toll ci euh, ñeent fukki ñeent fukki nit ak juróom ak juróom-benn yoo yoo ak juróom-ñett dimanche ñoo xam ne ñoom ñëpp seen àq ak seen yelleef dañu ko dañ leen dañ dañ leen ko xañ di leen jaay doole moom nag ci biir wax mu ñu xamal ne dafa bokk ci famille bu am doole ci yax bu rëy waaw ba tax na xëñ ne moom jàpp na ne mën nañoo nax wala mën nañoo jaay doole ba tey suñu li nga xam ne ñoo ko moom moom mu xañ ñu ñun nag lu mu ko jaral benn jaral nañu ko téeméer waaw jaral nañu ko téeméer ndax tey nekkatul ci xeex ngir xaalis bi mu ñu amel mais di dignité dafa ëpp lépp waaw dañu soxoon liggéey ñu am lu bëri lu ñu lu ñu daw ak moom loo xam ne sax au delà liggéey bi jaayante nañ ko ngir moom ngir sénégalais bi mu doon ndax tamit ki ñuy doon liggéeyandool sénégalais la jël alalam investir ko ci réew mi ñu nit ñu ne ay sénégalais ñu ne nañ ko jàppale ba tax na li nga xam ne tey xalaatuñ ko sax di ko liggéeyal nit defal nañ ko ko moom ginnaaw loolu nag amul lenn lu mu ñuy fay lu dul jaay ñu doole ak euh, waaw mu ngi noonu daal. te mënoo xaar mënoo xaar ba ñoom ñaar interview nga posé question mais Aïcha yaa ñu moom. <laughs> fi nga ma fekk. voilà. ak Malick El Hadj Malick Ndiaye. nga xaaral ak. ndax Boubacar Cissé eh, dañoo dégg. Boubacar nag mën a complété. Boubacar Boubacar Kane bàyyi Boubacar mu complété. Hmm? Sénégal non Sénégal bi muy Sénégal mais ku tardé doo wax Sénégal bi muy Sénégal la ku tardé doo wax. ah ah xaw ma de. gis mhm. ñu jox kàddu gi ñu ngi jox kàddu gi Boubacar euh, Cissé moom moo yore kàddu euh, liggéeykatu euh, groupe industrie Mina ci nasaraan voilà Boubacar Cissé bisimilah vous avez la parole. bonjour. Euh, je viens par cette présente euh, vous faire part de, de la requête euh, des délégués du personnel sous euh, euh, l'impulsion de tout le personnel euh, par rapport à la situation qui sévit au niveau de la société Groupe Industrie Mina SA, société anonyme, créée par la famille Djalé Diaye composé par des actionnaires donc M. Bamaniaï, M. Elaj Malik Ndiaye, M. Mamadou Ndiaye, M. Mansour Ndiaye et autres. Euh, la société euh, Groupe Industrie Mina s'active dans la production et la commercialisation de Javel, Javel Mina, de détergent, de savon liquide appelé Mina aussi. Et euh, pour en arriver là, la société avait racheté le matériel originellement euh, qui était la propriété de Colgate. Colgate qui a demandé à la société Sympa d'être son sous-traitant pour la fabrication et la commercialisation et la commercialisation de la javel et du coton. À la cessation de l'activité de production de coton et de javel par la SEMPA, le groupe Industrie Mina a racheté le, euh, le matériel pour implanter une, une, unité industrielle au niveau de la zone franche industrielle. Euh, pour ce faire, la société GIM, Groupe Industrie Mina SA, à demander à la SEMPA de lui euh, donner des techniciens pour la mise en place et euh, la mise en fonction du matériel. Et c'est ainsi que ces, ces euh, techniciens ont mis en place le matériel, les machines, ont mis en place une formulation pour pouvoir produire et vendre euh, les différents produits qui ont été fabriqués, à, savoir la javel et le savon liquide. La société a donc commencé à fonctionner, à produire et à vendre. Et au bout de deux ans, euh, la direction a fait appel aux, au délégués du personnel pour leur dire qu'ils vont procéder à un chômage technique de huit mois sans rémunération malgré tout ce qui s'est passé par la suite, pour qu'une qu telle situation ne se produise pas, on, a fait contre mauvaise fortune bon cœur et on est allé en chômage technique pendant huit mois. À la fin de ces huit mois, la direction nous a rappelé pour dire qu'elle va procéder à un un envoi à chômage technique de six mois sans rémunération encore. À notre grande surprise, Avant la fin de, ces, de cette période de six mois, la société a été cédée à l'administration pénitentiaire. Et plus grave encore, euh, un des actionnaires, en l'occurrence euh, le propriétaire de CO qui fait euh, euh, l'eau minérale, a pris tous les véhicules qui appartenaient à Jim et les a à la disposition de sa société. Il a même enlevé les, euh, le flocage pour mettre encore une enseigne nouvelle, CO, pour les, véhicules. Euh, donc, au vu de cette situation, on est à l'inspection du travail pour nous plaindre et le directeur, contre toute attente, a brandi des contrats en CDD pour dire que une partie du personnel il a rompu la, en fait, euh, le contrat avec une partie du personnel qui était en CDD. Et que pour ceux qui sont en CDI, c'est-à-dire euh, contrat à durée indéterminée, il a décidé de les amener travailler au sein de l'entreprise, qui est toujours au niveau de la zone industrielle. À la fin de, du chômage technique, on est allé là-bas, on n'a pas pu accélérer. parce que cette industrie a été vendue ou cédée à d'autres gens qui n'ont absolument rien à voir avec les travailleurs du gym. Donc, euh, M. Ndiaye, croyant qu'il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, a demandé aux gens de venir et de pointer au niveau de la rue le parking qui fait face à, à l'usine. Voyant que cette attitude est enfantine et irresponsable, il a demandé aux gens de venir désormais au niveau de la Solida à la direction commerciale. Une direction commerciale qui n'existe en fait que dans son imagination. Quoi, en fait. Et c'est pourquoi le personnel, voyant que le directeur général se livre à des tergiversations et à des enfantillages, a décidé de porter cette affaire au niveau de l'opinion sénégalaise. Pour montrer à l'opinion sénégalaise euh, le comportement des fois euh, antipatriotique, hmm, inhumain, mesquin et sauvage de certains directeurs qui prennent le personnel, qui s'est dévoué corps et âme pour eux, pour du bétail. Et c'est pour cela que nous, nous allons nous battre jusqu'au bout en utilisant, en utilisant tous les moyens possibles et imaginables légaux qui sont à notre disposition pour faire face à cette forfaiture de monsieur El Hadji Malick Ndiaye directeur euh, général de JIM de ses associés euh, pour en fait que le droit soit rétabli je vous remercie. merci beaucoup euh... merci beaucoup jërëjëf euh, Boubacar euh, Cissé. ma leen di fàttali ne Boubacar Cissé moo yoroon euh, gi euh, kàddu liggéeykatu groupe industrie Mina ci nasaraan et Gana moo yore kàddu euh, liggéeykatu groupe industrie Mina ci ci wolof ñun nag waa FRAPP ñu ngi ñu ngi leen di dalal ak jàmm ci suñu màkkaan suñu siège siège u FRAPP Euh, bi ñu nekk jamono ji di mettitlu di naxarlu li nga xam ne euh, moom moo dal liggéeykatu euh, GIM muy groupe industrie Mina di ko mettitlu bu baax a baax nag xëy na dugguleet ay liggéeykat ñëw fii ci màkkaanu FRAPP ci siège u FRAPP ngir ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy seen jafe-jafe mbokk yi li dal waa groupe industrie Mina du dëgg du yoon métti na jafe na je crois que ñun ñoo ko déggandoo ñenn ci liggéeykat yi dañ doon liggéey Colgate liggéey ci entreprise bu ñu woowee Sempa ba bés bi nga xam ne famille Ndiaye jënd na matériel euh, ci Sempa ngir wëyal yëngu-yëngu bi maanaam activité bi lan mooy yëngu-yëngu bi mooy defar euh, eau de javel defar saabu ak ñoom seen foog naa ne senegal bu dee am na loo xam ne du fi lamb mooy lu ñuy raxasee lu ñuy faberee kër yi li ñuy sangoo defe naa lépp dina lamb Sénégal ba mu des ay saabu ay eau de javel ay Ajax ak ñoom seen ay savon liquide ak ak ñoom seen a ah, ñuy wax itam mbooloo mi ne askan wi ne bi group industrie Mina di taxaw ñi ko moomoon xamuñu sax nu ñuy defaree eau javel xamuñu sax ni ñuy defaree saabu bu dul doon liggéeykat yi jaaroon ci Colgate yi jaaroon ci Sempa groupe industrie Mina du exister dafa am ay liggéeykat yoo xam ne ñoo jaar foofu yépp ay décennies ñëw baaxee leen les formules les compositions chimiques yi nga xam ne moom ngay boolante ba mu jox la eau javel ba mu jox la euh, saabu liquide ba mu jox la façon yu mel noonu ak ñoom seen ñoom ñoo sanc entreprise bi ñun waa FRAPP dañuy fàttali askan wi ne fàttali patron yi ne këru liggéeykaay maanaam entreprise walla usine ñaar ñoo ko yor capital ak travail maanaam xaalis bi ñuy sancee entreprise bi waaye tamit doole liggéeykat bi xaalis bi rekk ak lu mu bëri bari bëri bëri bari bëri bëri machines yi yi ngay jënd ak lu mu mucc ayib mucc ayib bu amulee doole liggéeykat bi usine du taxaw entreprise du taxaw liggéey du am liggéeykat bi itam ak dooleem bi lu mu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bu amulee capital entreprise du mun taxaw donc ñaari ñoo ànd waaye ñun waa FRAPP li ñu seetlu mooy capital bi dafay noot liggéeykat bi borom alal yi dañuy teg seen bopp ay yàlla di noot beneen pàcc bi nga xam ne bu amulee liggéey du am entreprise du taxaw usine du taxaw lii mooy gore lii mooy ñàkk kóllëre ndaxte kat bu du doon liggéeykat yi groupe industrie Mina du taxaw bu dul woon liggéeykat yi eau de javel Mina du am bu dul woon liggéeykat yi saabu Mina du am bu du liggéeykat yi xaw ma gel mina du am bu du loon liggéeykat yi produit mina du am et donc ñu ngi ñaawlu li nga xam ne moom mooy taxawaayu famille Ndiaye ah waaw njaayeen de am na njaayeen bu baax am na njaayeen bu bon ni mu amee saañaa bu baax am saañaa bu bon ni mu amee chandum bu baax am am càndum bu bon ni mu amee siise bu baax am siise bu bon waaye njaayeen yii moom ce sont des njaayeen indignes ndaxte bi njaayeen di fekk baax du noot moroomu doomu aadamam ñoom famille njaay liggéeykat yi sanc entreprise bi mu ñël leen ñu dem di saytu entreprise bi ci anam boo xam ne baaxul waaw bii sama jëkkër bii sama jabar bii sama doom bii sama mbokk ñu def ko mbiru mbokk ba lu entreprise bi meññal ñu seddoo ko seen biir di jël xaalisu entreprise bi yépp di ci jënd ay oto di ci noos te xamuñu ne entreprise ab jëmm la entreprise day lekk entreprise day naan ah entreprise bi bu meññalee tey dara nga jël lépp yéen famille njaay ngeen séddoo ko seen biir te fàtte ne suba entreprise dafa war a lekk gannaaw suba dafa war a lekk mais entreprise day taxaw te noonu la demee. famille njaay saytu entreprise bi saytu win bu bon bon boo xam ne dañoo ne ba jëmmi jamono marchandise yi fees dell ci biir groupe industrie Mina marchandise yi kenn mënu ko jënd kenn mënu ko jaay liggéeykat yi ñoo xar seen tànk tubéy famille Ndiaye ne dañuy tëj entreprise bi liggéeykat yi ne déet am nañ beneen pexe léegi lu ñuy def mooy nañu arrêté production bi usine bi na taxaw marchandise yi fi nekk te kenn jaayu ko ñun ñii nga xam ne suñu liggéey du jaay suñu liggéey mooy meññal ci biir entreprise bi ñun dinañ xar suñu tànk tubéy jaay marchandise bi ndax lan ndax rek am cofeel ci suñu outil de travail ndaxte entreprise bi mooy suñu outil de travail ndax lan patriotisme d'entreprise moo tax mbokk yi nañu bàyyi di wax ne sénégalais bëggul liggéey nañuy bàyyi waxtaan fu mu neexee rek ñu ne non non non sénégalais yi bëgguñu liggéey guinéens yi bu ñu fi ñëwee wala maliens yi bu ñu fi ñëwee wala gambiens yi bu ñu fi ñëwee def loo xam ne ñun sénégalais yi mais sénégalais yi nga xam ne ñooy daw bés bu nekk ba jëkk ay mbuusu tàndar ma xaw ma ak ñoom seen ci naaj bu tàng bi yeneen sénégalais am fit ñëw naan sénégalais bëggul liggéey en tout cas liggéeykatu groupe industrie mina kenn sañul wax ne bëgguñu liggéey def sacrifice ba tëj entreprise bi bàyyi li nga xam ne moom moo taxoon ñu embauché leen jël marchandise yi di ko dem jaay fu nekk ci senegal waaw di dugg ci marché yi di dugg ci supérette yi di dugg ci fu nekk jaay marchandise yi ay millions ay millions ay dix millions ay quarante millions ay trente millions ñu jaay ko waaye famille Ndiaye moom ndeysaan comme ni ma ko waxee Ndiaye indiñ la ñu bokk ci njaay indiñ yi saytu saytu bu bon lekk xaalis bi seddoo ko seen biir ba ñu ne mënuñu ñàkk dem xawma chômage technique liggéeykat yi proposition bu ñu teg ci table yi ñu ne déet chômage technique waaye tey lay soog a leer ndeketewoo lii di raam nekkul woon chômage technique lii doon direeku nekkul woon chômage technique ndekete ñu ngi waajal seen coup xëy na tey la leer lii doon direeku mooy fexe ba liggéeykat yi tokki liggéeykat yi tàyyi ñuy dem benn par benn bàyyi leen entreprise bi te loolu dugguleet dugguleet de yàgg nañ dégg ay entreprise fii yoo xam ne waaw anamu dafa naa Sigelec avec la famille Seydi noonu tamit lañ defoon ak yeneen entreprise huit mois de chômage technique sans salaire ngeen foo dëgg la ana inspection du travail ana ministre du travail ana ministre du travail huit mois chômage technique sans salaire lu ñu wax ñu ne leen déet lu ñu proposé liggéeykat yi comme solution ñu ne déet waaw huit mois chômage technique bi jeex ñu ne déet six mois encore chômage technique sans salaire sans indemnité sans ndàmpaay tous joxuñu ko liggéeykat yi ay père mère et soutien de famille dégg ngeen ko 48 travailleurs père mère et soutien de famille nga yóbbu ko chômage technique nga teg ko fan nga teg ko fan boobu ana ministre du travail ana inspection du travail ana monsieur le président de la république mi nga xam ne sénégalais yépp la fi toogal ñu def seen six mois de chômage technique six mois de chômage technique yu ñu boole ak huit mois de chômage technique muy quatorze mois de chômage technique maanaam at ak ñaari weer loolu dinañ ko def liggéeykat loolu dinañ ko def ay père mère et soutien de famille ay ponkal ay góor yàlla ñu ñëwaat six mois yi jeex waaw ñu leen di làkk ay daadaa liggéeykat yi finalement gis ne ndeketewoo famille Ndiaye bi nga xam ne moom moom groupe industrie Mina lu mu wax du dëgg lépp lu muy wax dara du si dëgg liggéeykat yi découvrir que ndekete ci biir juróom-benn weer chômage technique yi mujj yi dañoo jël entreprise bi jébbal ko jaay ko administration pénitentiaire on est dans quel pays ban réew la ñu nekk Sénégal mooy ban réew ba patron mën a def lii moo tax ñun waa FRAPP ñu ngi dénoncer les patrons voyous am na ay patrons yoo xam ne ñu ngi saytu seen entreprise nu mu waree mais am na ay patrons yoo xam ne ce sont des bandits am na patron yoo xam ne dañoo bokk ci li ñu woowee les patrons voyous di jëfandikoo liggéeykat yi comme sémmiñ boo xam ne boo ci paree nga sànni. di jëfandikoo liggéeykat yi comme ay torchon comme ay mouchoir boo fompee boo ci amee li nga ci bëgg ba pare boo fompee li ngay fomp ba pare nga sànni di jëfandikoo liggéeykat yi comme ay xawma mandarin comme ay xawma orange comme ay xawma limon yoo xam ne boo ko ŋaccee ba ndox bi jeex nga sànni loolu dëgg du yoon waaye lii bu amee ginnaaw bu ñu ŋaññee li nga xam ne moom mooy les patrons voyous c'est parce que ministre du travail moo toog seetaan ministère du travail mooy complice nañ ko wax te dee Sénégal sax est-ce am na ministre du travail est-ce que bi président Macky Sall supprimé xaw ma premier ministre jaaraale wu fa supprimé ministre du travail moo tax liggéey kat musul toroxee ni mu toroxee jamono jii ci Sénégal ana ministre du travail inspection du travail moom kenn xamutul sax lan mooy njëriñam donte am na inspecteur yoo xam ne ñu ngi góor góorgóorlu di def seen liggéey na mu waree. inspection du travail ban pouvoir la am donc entreprise bi jébbal nañ ko administration pénitentiaire ay jël jëlmaan maanaam ay détenus ñoo fay liggéey ah d'ailleurs c'est de dire que bu fekkee ñi nekk en liberté ay liggéeykat ñi nekk en liberté ñoom la ñuy toroxalee nii kon am naa tiitaange ci détenus yooyu nga xam ne ñu ngi biir kaso ñoom ñooy liggéey ci entreprise yooyu déggu leen ma de dama ne bu dee ñi nga xam ne ñoo nekk en liberté am sañ-sañ def conférence de presse def marche dem sitting def manifestation bokk syndicat ñoom la ñuy toroxal nii bëccëg nar kàmb ci Sénégal kon détenu boo xam ne amoo sañ-sañ yow daal munoo wax ak kenn da ngay jóge dañ lay génnee ci sa cellule génne la ci sa kaso yóbbu la ci entreprise bi nga liggéey ñu delloowaat la ca kaso. amoo téléphone portable munoo def conférence de presse bokkoo syndicat bu dee ñoom la ñu mun toroxalee nii ah bu yóbboo nañu am tiitange ci détenu yooyu nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci ak machine entreprise groupe industrie Mina boobu. et donc ñun waa FRAPP li nga xam ne moom mooy suñu position ci mbir mi mooy wane solidarité wu FRAPP. ak liggéeykatu groupe industrie Mina dinañ waxtaan ak ñoom dinañ diisoo ak liggéeykatu groupe industrie Mina pour xool naka lañuy def ba ñu fay leen seen àq ak seen yelleef ndaxte ñeenti at du ñeenti weer ñeenti at yi ñu liggéey ak groupe industrie Mina du ñeenti fan et que Sénégal dafa war a nekk réew moo xam ne dañuy respecter les droits des travailleurs ak ak yelleefu liggéeykat dañ ko war a respecter waaye fii Sénégal dafa mel nii ministre du travail mooy ministre des patrons waaye nekkul ministre des travailleurs travailleurs yi amuñu benn wàll ci ministère du travail amuñu benn wàll parce que ñu ngi leen di toroxal ñu ngi leen di dàq duñ nekk signer contrat wala buñ leen signer contrat duñ ko respecte ñu ngi leen di jëfandikoo comme ay mouchoir heure bu leen neex ñu dàq leen ay licenciement ay licenciement abusif licenciement arbitraire waaye tamit mënuñu wax nekkinu liggéeykatu groupe industrie Mina te ñu wax ni ñu laajtee ana ministre du travail ana ministère du travail mais ana syndicat yi ani centrale syndicale yi lan moo tax du ñu booloo def benn marche bu rëy rëy lan moo tax lu ñu booloo ñu artu ministre du travail ñu artu gouvernement président Macky Sall ñu artu président Macky Sall ndax 300 million xaw ma 600 millions yu ñu leen di jox de subvention chaque année ñoom centrale syndicale yi moo tax ñuy lekk te lekk mënul wax xanaa loolu la mais gàddu nañu àq liggéeykat yi ndaxte liggéeykat yi ñu ngi leen di daggal cekof chaque mois ñu daggal leen minimum 1000 francs yu ñuy cotiser ci syndicat yi ci centrale syndicale yi mais loolu riba la ndaxte boo jëlee 1000 francs liggéeykat weer bu nekk te doo ko waxal mais loolu àq la mais tey ngaa bañati jël ñaar téeméeram yi ngay jël weer bu nekk ñun lii mooy suñu position ministère du travail na jël ses responsabilité mënuñu nangu Sénégal mu am ay patron voyou rawatina nag patron voyou yoo xam ne ay der yu ñuul ay ay der yu ñuul la ni ñun patron voyou bu weex bu jaune bu xonq ak bu ñuul moo ci yem waaye nag on aurait pu s'attendre à ce que quand même patron sénégalais mu am yërmande ci consi ci concitoyen wam sénégalais lu ñu doon xaar ci patron sénégalais ci doomi réew yi nga xam ne am nañ xaalis ba taxawal entreprise mooy ñu gën a am yërmande ci ci seen mbokk sénégalais yii liggéey yi ñuy liggéeyloo seen biir entreprise donc ñu ngi ñaawlu ba fu ñaawlu yem taxawaayu patron yooyu ñu ngi interpeller le patronat parce que tey jii nii saa yi boo dégluwee le patronat ñu ngi naqarlu ñoom seen situation seen lempo dugg na fi génn na fi waaye mi kuréel yi nga xam ne moo ëmb patron sénégale yi mais ñoom itam. nañu sensibiliser seeni naataango seeni membre patron ci patron voyou yi nga xam ne ñu ngi am taxawaay bu ñaaw ak liggéeykat yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy liggéey loolu seen biir entreprise donc ñun waa FRAPP dinañ ànd ak euh, liggéeykatu groupe industrie Mina ci li nga xam ne mooy seen naxar ak seen métit dinañ ànd ak ñoom ci seen xeex ba keroog euh, euh, seen xeex bi di antu ba keroog ñuy jot seen àq ak seen yelleef ah ñu ngi interpeller tamit les organisations des droits de l'homme ndaxte droit du rek droit politique droit wala démocratie du rek élection am mu jaar yoon wala mu njàkk jaar yoon ñun waa FRAPP dañuy fàttali askanu Sénégal que sañ-sañ droit dafa am droit politique waaye dafa am droit économiques dafa am droit social droit politique am na solo mooy droit bi nga xam ne boo bëggee marche am nga sañ-sañ marche boo buggee nekk candidat élection locale wala xawma élection député wala présidentielle am nga am nga sañ-sañ nekk xawma candidat waaye droit yi yemul foofu dafa mel ni Sénégal daal droit yooyu rek daal moo fi am daal droits économique et sociaux respecter les droits des travailleurs daf fi tumranke moo tax tamit ñu ngi interpeller les partis politiques les femmes et les hommes politiques ñoom daal tant que seen parrainage seen candidature xaw ma seen mairie xaw xaw ma lan c'est pas un jeu ñoom daal ñu ngi ne pat waaye yeneen Sénégalais yi bu ñu sonnee bu ñu toroxee ñu ne pat ñoom daal nañu laal seen mairie ñu yuuxu nañu laal seen conseil départemental ñu yuuxu ñu laal seen mandat député ñu yuuxu bu ñu leen terewee nekk candidat présidentiel ñu yuuxu mais askani bu soxlawee. ñu ne pat loolu du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon syndicat yi war ngeen ci wax central syndical yi war ngeen wax ci nekkinu liggéeykat yi waaye yéen parti politique yi tamit war ngeen ci wax les organisations des droits de l'homme bàyyi leen xel ci détenu yi nga xam ne ñu ngi commencé liggéey ndaxte dama ne réew moo xam ne bu dee ñi nekkul détenu bu dee ñi caabi féetewul ginnaaw ñoom la noot ah ndax yaakaar mën na am ci respecté ak ak yelleefu ki nga xam ni caabi da ko féete ginnaaw wóoruma de bu bu ñu naxante ku nekk liberté koo xam ne mu ngi dem di dikk ñu koy noot comme ni ñu nootee liggéeykatu groupe entreprise Mina groupe groupe industrie Mina kon ki kon ki caabi féete ginnaaw kon kooku kon dee kon kooku lu ñuy respecté ci moom dañu waxante dëgg est-ce que sax nekk ñu Sénégal léegi di bëgg a jël place liggéeykat yi jox ko détenu yi ndaxte détenu yi comme amuñu benn droit lu ñu leen fay baax na ndaxte détenu yi lu ñu leen munti def mënuñu dem tribunal ndaxte détenu yi lu ñu leen munti def mënuñu dem inspection du travail est-ce que nekkuñu di commencer expérimenter loo xam ne ci Sénégal mooy jël liggéey liggéey bi nga xam ne les hommes libres entre guillemets ñoom ñoo ko am di ko jox détenu yi parce que détenu yi mooy main d'œuvre bi gën a yomb yomb ci njëkk yomb ci grève amul yomb ci marche du am yomb ci conférence de presse du am yomb ci sitting du am yomb ci tribunal du am yomb ci inspection du travail du am donc nañu bàyyi xel tamit euh, ci yooyu ndaxte loolu bu amee ça veut dire dinañ gën noot ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk en liberté waaye tamit dinañ noot itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci détenu yi lii moo euh, taxawaayu FRAPP lii mooy gis-gisu FRAPP di bokk métit bi ak naxar bi ak liggéeykatu group industrie Mina di ko bokk ak ñoom fas yéene si waxtaan ak ñoom fas yéene xool ginnaaw conférence de presse bi lan moo war a nekk suñu taxawaay lan moo war a nekk yeneen jéego yu ñu war a def bu dee dem sitting fi matériel lu groupe industrie Mina nekk loolu lañu war a def ah xëy na bu ñu ci àndee ak ñoom ñu ànd si ak ñoom dem sitting waaw. en tout cas ñoom liggéeykatu groupe industrie Mina lu ñu pare pour def ci xeex bi ñun waa FRAPP pare nañ ci ànd ak ñoom waaye ñu ngi lancé tamit un appel à tous les travailleurs foog naa ne fan yii di ñëw ay bés yi di ñëw foog ñu xool naka la ñuy organiser manifestation boo xam ne képp kuy liggéeykat ci senegal te ñu lay nott te ñu lay doyadil te ñu lay ñàkkal fayda te ñu lay jaay doole képp kuy liggéeykat ñu tàllal loxo ñu def benn say ñu def benn say. ndaxte lii dafa doy liggéeykat yi sonn nañu tàyyi nañu damm nañu te lu ëpp tuuru jërë ngeen jëf.